li ñu dajale tey dañu tàmbali woon ñëw jàkkaarloo ak yéen tàllal loxo ut ñaan wan leen ne ñu ngi dem ci komba sàkk woon ci yéen ngeen jàppale ñu ñu demoon ci komba boobu mu am mu mel ñu war a dellusiwaat si yéen yëgal leen combat ba nga xamante ne ñun ñoo leen tàllaloon loxo ut si ñaan combat ba nga xamante ne ñun ñoo ci demoon lañ jëlee ci combat boobu moom lañ leen bëgg a indil tey élection législative lañu demoon mu nekk ay yoo xam ne ci lañ waroon a tànn ndaw yi nekkal askan bi fee ca pencub ndaw réew mi ndaw yooyu noonu nag ñu bokkoon ci ndaw yi doon xëccoo fii ci département de Foundiougne buggoon a demal suñu askan nekkal suñu askan yàlla mi dara teewul def na nag e ñi fi nekkoon ñoom ñoo jàllaat e nekkutoon li ñu gënaloon waaye nag yàlla bu dogalee jaam bi dafay nangu donc ñu ngi nangu ndogalu yàlla te di ñaax ñooñu ñu fàttaliku ne askan bi moo leen fal ñu nekk ci askan bi bañ a nekk seen bopp mbolla ci leneen ak leneen euh, coalition Aar Sénégal dañu gis ne Sénégal dafa nekk ci ay jafe-jafe yu tar rawatina ci département de Foundiougne plus particulièrement si Ñombaatu et te lii indi firnde ci li ñuy wax dañu def tournée amul commune bu ñu duggul ci li nga xamante ne moo nekk département de Foundiougne commune bi gën a tardé ci département de Foundiougne mooy commune bu Niassène boo demee dëkk bu mel ni Kër Maalaw nga dem Njóobeen ba Dagga yi dëkk yooyu amuñ courant amuñ yoon xale yi ci jafe-jafe yu tar lañ nekk pour ñu charger seen téléphone problème la pour ñu charger seen ordinateur problème la connexion bu baax sax mënuñ ko am ñu ne ñu ngi digg Sénégal ñu ne ñoom aussi ay sénégalais lañ ñuy wax territorialisation des politiques publiques loolu bi ñu ko gisee dañ ko naqarlu ne woon nag dinañ ko porter à l'intention des autorités compétentes de ce pays pour ñu jël ci ay matuwaay parce que nag ay sénégalais lañ comme waa Dakar ay sénégalais lañ comme waa Thiès donc ces disparités territoriales ñu ngi ci interpeller autorités yi ñu xam ne nag alalu réew mi waa réew mi ñoo ko moom bi ñu jógee ci commune bu mel ni commune bu Niassène dugg nañ commune bu mel ni commune bu Kër Samba Gueye yoonu Medina Jikoy bi insécurité bi ci nekk état bu Sénégal waratula sàggane yoon boobu mu nekk ci condition yi mu nekk jaar fa sax risque la lu ne mën na la fa arrivé donc ñuy interpeller encore dañu ko gis bëggoon doon ay député taxaw assemblée nationale ministre bi nga xam ne moo yor walla infrastructure bu fa ñëwee ñu jàkkaarloo ak moom wax ko jafe-jafe ya ñu gis maanaam ministre yëpp ku ci nekk bu ñëwoon assemblée nationale la ñu jotoon a def si suñu tournée gisal ko suñu bopp askan bi waxal ko boppam moom la ñu bëggoon yóbbu assemblée nationale. yàlla def na nag ñeneen ñoo falu kon ñu leen di ñaax ñoom ñooñu ñu yóbbu baatu askan bi yóbbu jafe-jafe askan bi doon nañ xëccoo ci xëccoo bañ doon xëccoo yàlla defal nañu sutura. parce que tamit bi ñu jógee noon yi jógoon nañ région bu Fatick ci coalition aar bi nga xamante ne moom lañ dem et suñu coalition département de Foundiougne ci ñett département yi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk région bu Fatick département de Foundiougne moo si jiitu ci wàllu résultat am deux mille cent voix te nag demeewuñ moyen kenn suñu poosu bopp lañ doon deme lépp ngir suñu askan lépp ngir suñu gox wuute nag ak ñi nga xamante ne dañ leen joxoon ay millions yu dul jeex ne leen dem leen naxante ak askan bi pour ñu falaat leen am nag ñoo xam ne ñoo fi nekkoon yoroon réew mi muy la coalition wàllu la PDS PDS boobu def nañ fi fukki at ak ñaar ñoom ñoo waroon defar yoon yi ñu nekk tey di jooy ñoom ñoo waroon indi courant bu doy ñoom ñoo waroon indi ndox ñoom ñoo waroon taxaw ci xëyu ndaw yi ñu gis ne loolu am na lu luñ ci jéem waaye lu gën a bëri defuñ ko ñooñu bu ñu ñëwee sampaan dënd soxlawaat am na leneen lu ñu soxla lu mooy liggéeyal askan bi ñu jàmmaarloo ak liste boobu ñu ëppoon ñu ay moyen nag parce que ñoom ñoo yoroon nguur gi ak ñi ko yor tey ci biir loolu ñu gis ne nag résultat bi coalition Aar Sénégal am ci département de Foundiougne mu nekk résultat bi gën ci région bu Fatick parce que Fatick ñu ngi fa am 600 département bu Fatick ñu ngi fa am cent 670 voix li nga xam ne mooy département bu Gossas ñu ngi fa am 73 voix kon loolu kese doy na pour ñu féliciter sant population bu département de Foundiougne parce que bi xëccoo jotee xëccoo nañ mais bi ndam jotee aussi jox nañ coalition Aar Sénégal mu jiitu ci li nga xamante ne mooy région bu Fatick bu ñu jógee ci loolu ñu analyser tuuti résultats yi nga xamante ne moom moo jógee fii ci commune bu Karang ñett liste ñoo fi nekkoon di dirante mbagg benn liste dong moo ci amoon ndaw boo xam ne mu ngi yeewoo Kaarang bëggaloon waa Kaarang bëggaloon département bu Foundiougne bëggaloon ñoom Mbaato am yeneen ndaw yu jógoon ne ndaw boobu noonu jógaloon Kaarang jógal ñoom Mbaato jógal département de Foundiougne ndaw boobu duñ ko bàyyi mu dem parce que pexem bu sottee ñun li ñu bëgg dootuñ ko am may fàttali waa Kaarang waa ñëw mbaatu waa département de Foundiougne bi uut xëy jotee uuti nañ xëy fañ ko war a uutee dañu génn gox bi uti ci xëy yàlla suturaal ñu ñu am xëy ci biti ñëwuñ di dundee ay impôt waa Kaarang wala taxe waa Kaarang liggéeyal waa Kaarang moo ñu tax a jóg politique dundaluñu ñun dañuy dundal politique wax naa ko sànq suñu alal suñu moyen humain suñuy moyen matériel moom la ñu jël dugal ci politique parce que tamit dañu war a taxaw suñu askan Abdoulaye Wade dafa taxaw woon askanam mu jaraloon ko nag muñ ñaar fukki at ak juróom-benn Mandela mu jaraloon ko ñu tëj ko ci kaso ñaar fukki at ak juróom-benn lépp ngir bëggal li nga xamante ne mooy seen askan ci tànk yooyu la ñu nekk ci yoon boobu la ñu nekk képp ku yaakaar ne nag mën na ñëw faqastal ci yoon boobu muy fii ci Karang muy si ñombaatu muy ci département de Foundiougne muy Sénégal dafay nax boppam fii yàlla dong moo fi nekk te nag fekk askan baa ngi am jafe-jafe fekk yàlla mu ñuy may kattan ak yéene bi dinañ continuer di taxaw suñu askan kon ñu taxawoon kaarang fii ne docteur Abdourahmane Diallo ak ki nga xamante ne mooy candidate bi muy madam ba Dieynaba du duñ fi amee dara yàlla atte na ne am nañ fi 975 voix muy junne bu manqué ñaar fukki xob ak juróom may fàttali waa coalition wàllu yeewi fii ci Kaarang rawatina coalition wàllu coalition wàllu bi ñun ñoo àndoon ci élection locale dañ ma abaloon seen récépissé ñun ñi àndoon ci coalition bi muy Abdoulaye Ba coordonnateur mouvement And Dekkal Ngor muy euh, le responsable Noa Diouf car leneen bu am Amsatou Sow bi ak yeneen responsable yi bi ñu demee élection locale dañu am mille cinq cent soixante-dix-neuf voix gagné gañe Benno Bokk Yaakaar waaye waa Kaarang gisuñu ñu génn ci mbedd mi di jubilé di wane ne ñoo am ndam parce que dañoo ñàkkoon département bi gis nañ nag ci élection yi koo xam ne mu ngi ànd ak ñenn daf ne woon du ñu gañe daf ne woon du ñu am dara daf ne woon dañuy nax waa Kaarang wala dañuy nax suñu bopp mu gañe Kaarang dong topp mbedd yi di yuuxu di jubilé di tëgg ay ndënd ñun gañe woon nañ te bi ñu gañee rawee nañ leen ñoom ñi gañe mille deux cent quatre voix am maanaam junney xob ak ñaar téeméer ak ñeent lañ am ñun amoon nañ junney xob ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ñu rawee leen lu mot ñett téeméeru xob ak juróom-ñaar fukk ak juróom taxutoon ñu génn ci mbedd yi di yuuxu ne ñoo am ndam kon ñoom la leen yitteloon mooy Abdou Diallo bañ a gañe Kaarang mais nekkutoon gañe département parce que nooy gañee Kaarang ñàkk département di wane sa mbégte kon ki nga doon xeex waa Kaarang la te nga ne yaag moom yéen a bokk kaarang nga ne yow da nga yéene kaarang munoo yéene kaarang bëgg kaarang gis waa kaarang taxaw bëgg liggéey kaarang liggéey ñombaato liggéey département bu fu ñu nga ñëw di ko gàllankoor te li koy firndeel mooy wane sa mbégte que ne gañe nga fa te gañe woo ca département tey nag yàlla mi dara teewul xañ na leen xañ nañu nañ ànd muñ te bu ñu jàppalante woon ak ñun amaana munoon na demee neneen te may yëgal ñi nga xamante ne ñoo ko def ba jiitu ci département ba jiitu fii ci Karang am mille cinq cent soixante-dix-neuf voix loolu dañu koy sante askanu Karang parce que waa Karang ñoo ne comme que Abdou Diallo dong moo samp dinañ ko votel ñu sànnil ñu ay xob ba ñu doyal ba ñu am fi ndam ñooñu tamit ñoom ñoo àndoon ak man ak honorable Famara Senghor ba ci département bi ñu jaaxal fi parti bi nga xamante ne coalition bi nga xam ne mooy coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi amoon lu ëpp vingt trois mille voix ñi nga xamante ne ñoom ñoo ne woon ñun duñ fi jiitoo élection yi passé dix huit mille voix bu teg tuuti la ñu am ñun bi ñuy ànd ak faamara Famara amoon na vingt trois mille voix maanaam ñaar fukki junne xob ak ñett ñoom ñu ngi ànd ak moom motalul sax ñaar fukki junne xob kon ci biir liggéey résultat yi firnde na ne ñun duñ seen morom dafa am nag loo xamante ne ni dafa am leneen lu muy niru ñun li ñu gënoon a yittal mooy falu député nekk ci jafe-jafe waa Kaarang nekk si jafe-jafe waa Ñombaato nekk ci jafe-jafe département de Foundiougne wax naa ko dinaa ko waxaat e, xale Ziguinchor dañu tànn Ousmane Sonko ne mooy doon seen maire ne Ousmane Sonko mooy doon seen député ñu taxawu ko gunge ko ba Ousmane Sonko doon député doon maire Thiès ñu ne Idrissa Seck mooy nekk seen maire ñu ànd ak moom gunge ko taxawu ko ba mu doon maire ñu ànd ak moom gunge ko taxawu ko ba tey mu doon li mu doon muy président conseil économique social et environnemental Macky Sall bi muy wut waa Fatick taxawu ko gunge ko ba mu am li mu bëgg Latif Coulibaly bi muy wut waa Sokone taxawu ko gunge ko ba mu am li mu soxla Pape Ndianko bi mu soxlaa waa Toubacouta taxaw ko gunge ko ba mu am lu mu soxla ñun Kaarang ñu taxaw waa Kaarang war ñoo gunge ba ñu am lu ñu soxla am ñenn ci waa Kaarang ne dañuy def politique ñoom ñu taxaw ne ñun li ñu fi soxla du fi am kon ñooñu dañu bëgg waa Kaarangeer ràññee leen xam ne ñun bi ñuy jóg di politique depuis 2014 la te bi ñu jógee di politique Kaarang amutoon ndox mu doy ñu xeex ci wàllu forage Latif li ñëw ma ne ko tey mbëbëtu Kaarang lenn la mooy ñàkkum ndox mi jigéen ñi ay trois heures du matin 4 heures du matin la ñuy jóg pour am ndox loolu lañ bëgg a saafara soo bëggee ñu jàppale la dang ñu jàppale ñu am deuxième forage ñu dox ci wax ci ba yàlla suturaal ñu ñu am deuxième forage pour ñu dimbale ñu Kaarang am lycée tey bu yàlla defoon ñu falu ministre bi nga xam ne moo yor wàllu éducation bu ñu fekkee assemblée nationale dinañ xam ne dinañ taxawu Kaarang pour mu am lycée mbooloo duñ ko taxawu Kaarang am problème mu ndox lu mel ni booru fare ba faro ba ñu waroon ci taxaw ba Kaarang mën a am canalisation ñoom mbaato bi tey diggante Toubacouta ak Missirah Pam Dianko commune bu Toubacouta la nekk ki nga xam ne moo nekkoon le député sortant muy Famara Senghor bani la dëkk te bani mu ngi diggante Missirah ak Toubacouta ñoom lan moo tax taxawuñ ba yoon boobu ñu bitime ko maanaam mu doon goudron yooyu yëpp nekkoon ay jafe-jafe yoo xam ne ñun bu yàlla defoon ñu falu dinañ ci taxaw donc mbokki Kaarang élection yi passé yàlla def na ñun campagne uñ fi mbokki ñoom mbaatoo am na dëkk yoo xam ne waroon nañ fa yegg jotuñ faa mën a yegg mbokki département de Foundiougne am na gox yoo xam ne bëggoon nañ fa yegg dëkk yi bëri na yoon yi baaxul nekkul fu nekk lañ mënoon yegg parce que yoon yi baaxul rawatina yoonu Touba Mouride bi du yoon bu baax yoon bi nga xamante ne moo jógee Toubacouta dem Kër Saalum Diané yoon boobu tamit baaxul mu nekk ay jafe-jafe yu taratar la ñu yëkkati woon nag moo nekkoon taxawu suñu askan muy bu Kaarang muy bu Ñombaato muy bu département de Foundiougne